auzu billahi min aseytaani rajim ginnaaw bañ santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi ñu ngi sant suñu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñu ngi siyaare bu baax a baax mbokki taalibe yi ak mbokki jullit ñi suñu kàddu nag ñoo ngi ciy jiital suñu yaakaar suñu sëriñ ñu koy xoolee jëmmu cheikhul xadim ñu cheikh amadul muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ginnaaw loolu ñu ngi siyaare mbokki taalibe bi yépp yu nekk fii ci réew mi ak bitim réew te di ñaan yàlla dolli xéewal ci ñoom bu baax a baax di am lañu bëgg indi tuuti rekk si leeral si loo xam ne nit ñi defuñ ci ab seetlu te yàlla dogal na ñun ñu def ci ab seetlu loolu lan la mooy boo xoolee guy Masaalikul Jinaan bañ ko ibbee ba tey Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw fi ñun xamoon nañ li lalu lépp ci jumaa ji li si lalu mooy dafa am ngóor soo xam ne muy mbakki yu fay moom moo yor liggéeyu jumaa ji wante dafa doon ngóor soo xam ne moom mbakki yu fay boo ko réew àdduna ak gis leen ma ak bëgg ne moom nii la toll ak bëggub ceex jaral na ko lu nekk ba ñëw Cheikh Mouhamadou Mountakha bi ñëpp gis nañ nam doon yéegee si oto bi mel ni ab buur di yëkkati loxoom ay géwél yu naafiq yoo xam ne ay suqam lañ këram lañuy añee ànd ak moom dem jumaa ja naan ko am nga ndam te la ma ko waxoon amoo ndam lislaam gi ñoo am rawatina talibi suñ ci waaye yëkkati seen addee jox ci te sab dërëm defu si la ma say dolli mooy gis ngeen jumaa ji ba mu paree bu ñu ibbi ko ba noppi Cheikh Amadou Mountakha ibbi ko ba noppi seetlu nañ ne waxtu juróom yi muy bisu ajjuma su jotee dama raga dama dama dama xalaat ne juma yi muy neegu suñu borom buur bi tabaraka wa taala fi ñuy jaamoo yàlla ya yaakaar naa ne kenn waru faa jël di wane ne kii moo ëpp daraja kii wala kii moo gën a place bi déedéet lu tax loolu muy dañoo seetlu bis bu ma jotee mbakk yu fay li ma leen doon wax dem si jumaa je am nañ seetlu bi te metti na leen te naqari leen wante seen làmmiñ moo lottu si génne ko wax ko ndax ay taalibe lañ wante ñun bu ñu yàlla boolee si njaboot gi ñuy gis loo xam ne day saboote yoon wi am loo xam ne nekkut woon si yoon wi ñu gis ñoo xam ne dañoo ñëw bëgg xajamal yoon wi te seen intérêt personnel moo tax ñuy def na ko suñu ak bëgg wane na ñoom ay buur lañ te duñ ay buur ay jaamukatu yàlla lañ ñoom di leen xamal ne ñoom ak ñi nga xam ne yàlla def na seeni wërsëg néew ñoo yam ci serigne touba te yaakaar naa serigne touba de taalib yi nga xam ne ñoo gënoon ne néew doole ñoom la gënoon daan xëcc ci wetam di leen taf ci wetam may wax ne da ngay xool bisu àjjuma bu jote doomu aadama bu nekk ñëw di jaamu si yàlla foofu ragal naa ne néegu suñu borom buñ xasee ba nodd ba woote amul mbàkki yu fay amul ma samba amul ma dem ñëpp ñoo war a yem si néegu suñ borom boobu daraja wante dañoo xool ne image ak yoo xam ne ñëpp ko ñaawlu te kenn rafetlu ko ay doomi soxna dañuy ñëw di julli si seen oto dañ koy gaare foo xam ne wàcc dox seen tànk dem si ñu gis imam bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ab yiwam ak dalam ba fi mu toll may wax ak yéen te li ma leen wax teg leen si seen bët te di ko bàyyi xel mbakki yu mu ngi siy pexe yoo xam bis bu jógee mooy imam boobu dootu fa jiite ci la ma say dolli mooy imam bi xeeb xeebin goo xam ne bu ñëwee ay sukkam ak ñoo xam ne dañoo naa feq ànd ak moom dañ koy programme moom mbakkiw otoom fa muy gaare ñu koy garde yeneen oto yi duñ fa gaare te loolu du dëgg du yoon day ñëw ba si wetu jumaa ji ba sës si porte bi ñu gaare fa mercedes am boobu nga xam ne kenn xamul lu muy nurul ndax lu lew jëndewulut mercedes boobu bu fekkoon lu lew la nañ mën a wax ne mercedes boobu am na solo wante ñàkk solo la def ndax lañ ko jëndee nekkul loo xam ne lu lew la may wax ne fa muy gaare yeneen oto yi difa imam ba famuy garé wacc dox tankam té man lima gëm moy amna ño xamné xam ne ko gën judd fuuf gën ko gëm serigne touba té nañuy def ba bayyi seeni auto wacc ko dox ak seen tank ñëw ci jumaa ji moom bu nekkon ko gëm serigne bi te ragal yalla dëgg waron na buy ñew fu otoom jegesee jumaa ji mu garé ko si biti dox ak tankam dem tok si sàppee ya. lima gëm moy tay bu dekk nit ko xamné day wi di bon exemple warna bu ñëwee sax buñ ne ko jàllasil si kanam si woyefam si bëgg liggéey sëñ tubaa da leen déedéet ab taalibe laa ni taalibe yi doonee si kër sëñ tubaa bëgg faa jëriñu day toog si sàppe yu mujjee wante darajaam bi mu bëgg ñëpp gis leen na ak xoggalikoom gu mag gi muy def te ñooñu ñi may àndal ñoom la intéressé wante ñun intéressé wuñu ndax ñun dara fëkkut suñu bët te dara reyut suñu bët lu dul sëriñ mom nak lama waxon rek mo ci nek moy mbàkk yu nek ni nit ko xamne ne dara ko luddul xajamal yoonu suñ tubaa ak bëgg gis leen ma ak bëggu ciex wante nak lolu kiñ ci wo mu war see addu moy cheikh amadou muntaha mu wax ak mbàkk yu xamne juma je neegu yalla la mom ak ñeneen ñi dong ñoo fa bokk yam wante nañ koy tegalee auto mu dem ba jégué biir juma ji ñu garder ko mu dem di yëkëti lama ci gëna metti moy ñoo ngi fay programme yoo ay programme yoo xam ne am na sàppe yoo xam ne duñ nangu kenn toog fa ndax daa am ñoo xam ne ñoo leen di mosal ñuy def seeni poos ñooñu la ñuy wutal sàppe yooyu wutal leen place yooyu pour buñ ñëwee toog si loolu nag jaaduwut tey jaaduwut ëllëg na ko taalibe yépp xam sëriñ si nga xam ne ñoo yaakaar suñ tubaat te gëm suñ Tuubaa nañ xam loolu ne jumaa jee jumaa joo xam ne bonne référence la waroon a doon si Ndakaar wante nekk na jumaa joo xam ne nii ñu koy doxalee man rafetlu ma ko te ànduma ci muy juma jo xamne dañ fay def juma jo xamne kuma neex moy nek ci kanamu sappe bi momay nyom jox xaalis wala mbakk yu fay ay nitam ñom ñoo ñew tok ci kanamu sappe bi te lool du deug du yoon nañ boole yamale jul yep xamne neegu yalla la amul len luñ fay programmer amul len luñ fay yëkëti am nit dudul neekati suñ borom bur bi tabaraka wa taala ba kep ku fa ñew bëgg jaamu yalla nga ko borom bëgge te am ci rafet njot xamne nga ci am yiwu suñu borom wanti mbakki yu mi doxale juma yi mazalikul jinan ñepp ko ñaawlu kenn lu ko ñun nag bettuñu ñun dara am bettuñu de ndax yag nañu genn ne mbakki yu xam giñ ko xam te am yeneen mbóot yu graw yo xamne ne xam nañ ko te insha allah rabbi nenañ ci ñewat par ben par ben ndax bu tayewul ñun duñ tayi ndax ta nek si yoonu suñ tuba bi kenn xamul fu cosaanoo kenn xamul fu mu jógee mu bëgg a ñëw si yoonu suñ tubaab bi di ko utiliser ngir intérêt personnel boppam loolu duñ ko ko may tey duñ ko ko may ëllëg ñu xam ne ñun suñ tubaab lañ am te bëgguñu benn nit ku ñëw bëgg a jël taalibe yi di leen nag rawatina ñi nekk Ndakaaru mooy wax taalibe yi am leen seen fulla am leen seen fayda ba mbàkki yu fay mii lii mu leen bëgg a not di leen utiliser ngeen bañ ko tey bañ ko ëllëg xam ne suñ tubaab dong ngeen gëm te ëppalewu leen dara si suñ man nak la ma la waxon ci la nek ba rek tayi wut si nju njaaj yi ngeen di def Duku utiliser talibé yi man du ma tàyyi di ngeen xamal ne gënoo leen kenn mazalik bobu nga nek diko utiliser ngir sa intérêt personnel xamal ne lu mu yag yag yag yàgg suñ borom nana la ndak kam si talibé yi xam la ngay def dara du ci dëkk ñun nak ñi ngi wax talibé yi képp ku fa dem na nga xamne ne mo la fa yob ak diiné ak waxtu suñ borom mi nga baña bok ci ñi nga xamne dañ fay def na ko sud noonu ngir seen intérêt personnel muy mbakk yu fi ak lebeem yu bon yooyu mu andal nga xamne seen kërëm lañuy ñuy ji buñu paré ñëw si jumaaje té te juroom indi wu leen fa wante bëgg gis leen mbakk yu fay ak ñim andal di programme mbakk yu fay pour mom mom mo fa nekk ko xamne mom do nga wara jité ñëpp loolu du dëgg du yoon kon nak loolu manqué wax talibi li nga xamne dal mbakk nekkinam si jumaaje rafet lu ko rawatene bisu aljuma gi nga xam dañ koy julli ñu fay def nako su nonu di jël mbak yu otom ba diko duggal bam ba juma ji yenen auto yi ñu leen di garé fele imam ba ci bopam fa otom di garé bok fa auto mbak yi fay di garé moko gëna jégué fuf juma ji te lolu ñaawna na ken rafet lu, ko wante bu fekkon tay day jox gëdd warona yëkëti imam bi nga xamni moko gëna ko gën kop ali wo fuf mom mu doon ko xam ab jahil la xamu dara mom mbak yi warona na imam ba sa bu ñëwé mom mo koy dem gattu si buntu. ba xëcc otoom bi ba mu jegee si porte bi nga xam ne fa lay jaaree mu tatagal ko yóbbu ko ba si si si si si si si jumaa ja loolu moo waroon a doon waru garam wante waru garam nekkul moom bu ñëwee ñu koy escorté di gaare otoom foo xam ne imaam ba nga xam ne daana leer na mu moo ko gën judd foofu gën ko su gën ko sut aliwo duñ ko jox wàccuwaay woowu ñun nag ñaawlu lañ ko te rafetluñ ko di ko xamal mbokki taalibe yëpp ak ñi bokkal Serigne Touba xam ne mbakki yu daan nii lay doxee ndakaaru ci jumaa jee nga xam ne ibbi nañ ko muy néegu suñu borom jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh